seen site bii di talabul ilm farida na leen bind bu bees ñu di ko tuddee silsilatu tawxid di bind yoo xam ne dañu ciy settantal jàngat ci lan mooy tawxid wéetal borom bi subhaanahu wa taala ci jaamu gi ñu koy jaamu bind yooyu nag di bind yu ama am solo ngeen di ci ànd ak seen mbokk seen xarit ustaaz Ousmane Gueye fii ci suñu seen youtube talabul ilm farida bu ko kenn tarde bind la yu ama am solo ndax tawxiid jullit bu ci nekk war na ko jàng xam ko xam nu muy wéetalee boroomam subhaanahu wa taala alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulihi al amin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen baalu àq te di leen baalu àq di wax ngeen gën di wéy di abonné ci seen chaîne bi euh, tey nag dañoo ñëw pour bëgg a ubbi benn euh, silsila boo xam ne silsila tawxiid lañ koy lañ koy tuddee mooy ay waxtaan yoo xam ne dafay jëm ci wéetal yàlla subhaanahu wa taala borom bi tabaraka wa taala ana yéen àq la am ci jaam yi mooy àq yi nga xam ne jaam yi dañ ko war a jox yàlla subhaanahu wa taala waaye itam ana ban pas-pas la jullit bi war a am ci yàlla subhaanahu wa taala ana ban pas-pas la war a am ci malaayika yi ana ban pas-pas la jullit war a am ci yenent yi ana ban pas-pas la jullit war am ci téere yi nga xam ne ñoo jógee koo kaw asamaan ana itam ban pas-pas la jullit war a am ci gëm àllaaxira ak gëm dogal ak lépp loo xam ne dafa jëm ci wéetal yàlla subhaanahu wa taala ban taxawaay ban pas-pas la ci jullit bi war a am mel ni loolu nag dinañ ko ubbi di ko def ay silsila di ko def ay waxtaan su ko defee mu nekk waxtaan yoo xam ne doomu aadama yi dañ ciy jëriñu ndaxte bu ngeen xoolee tey tawxid nekk na loo xamante ni dafa manqué ci dundu doomu aadama yi wetal yàlla subhaanahu wa taala dafa manqué ci dundu doomu aadama yi tey doomu aadama yi bari xàmmeetuñ li yàlla moom ak li nga xam ne moom la doomu aadama moom te xam ngeen ni tawxid moo taxoon yàlla tabaraka wa taala yónni yonent yi lenn taxuloon yàlla yónni leen mooy ngiree ñu ñëw ci kaw suuf wax doomu aadama yi ñu jaamu yàlla te wéetal yàlla ci jaamu googu nga xam ne dañ koy jaamu comme ni ko yàlla subhaanahu wa taala waxee wa laqad bacatna fi kulli ummatin rasulan an icbudu allaha bu taaxut amul benn génération bu fi mos a jàll lu dul ne man yàlla yónni naa ci ñoom ab yonent boo xam ne bu ñëwee def naan leen jaamu leen yàlla te ngeen moytandiku lépp loo xam ne taaxut la ci yeneen aaya borom bi subhaanahu wa taala yenenti yàlla nuux yenenti yàlla xuud yenenti yàlla saalix yenenti yàlla shuaib yenenti bu ci ñëw rek lan ngay wax saw xeet yaa qawmi ubudu llaha ma lakum min ilahin gayru ey yéen samaw nit jaamuleen yàlla subhaanahu wa taala te ngeen xam ne amuleen beneen buur ba ngeen jaamu ko dul moom kon loolu li muy tegtale mooy ne tawxiid mooy li war a njëkk ci jullit bi gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog ba nga xamante ni moo ngi yónni Muaz ibn Jabal ngiree mu dem Yemen yonent bi di ko fa yónni def ko fa gouverneur lim ko njëkk a wax bu yeggee mu woo leen ci mooy tawxiid moo tax mu ne que innaka taati qawman ahla alkitab faltakun awala ma tadcuhum shahaadatu an laa ilaha illa mu ne ko yaa ngi ñëwal xeet woo xam ne day jotoon nañ téere kon su boobaa soo demee li nga leen di njëkk a woon a doon nañu seede na amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhaanahu wa taala seede ne muhammad ndawal yàlla la suñu ci noppee nag nga soog woo ci julli woo leen ci azaka woo leen ci koor kon nga gis foofu yonent bi alayhi salaatu wasalaam lim tàmbale ak Muaz ibn Jabal moom mooy tawxid tawxid boobu nag lañu bëgg a ubbi benn silsila boo xam ne dañu koy def wax ngëneel yi nekk ci tawxid waaye itam wax importance bi nga xam ne moom la tawxid am waaye itam wax ana yan euh, gàllankoor moo nekk ci jullit bi su fekkente ni amul tawxid boobu kon na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax baax a baax a baax incha allah dinañ commencé silsila bi na ci ñëpp bàyyi xel te di wax ngeen gën di wéy di abonné di gën di euh, partager vidéo yi ngir ñu jëriñ suñu bopp jëriñ suñu mbokk jullit loolu dong lañ ci jublu ngeen di ñu yokk ñaan di ñaan yàlla subhaanahu wa taala lépp loo xam ne ñoo ngi koy def ci seen bi mu sellalal ñu suñu yéene bañ def ko te jëmmam ji rekk tax hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain